ci géej gi di liggéeyal borom bi Mawlana tabaraka taala nekk ci mission euh, mbokk yi bés boobee nag euh, moom la ñuy fàttaliku di ko màggal fii nga xam ne moom moo di jàmmalaay ngeen gis ne tey jii mooy bés bi nga xam nag moom moo di rek euh, tey jii la ñuy amal li nga xam ne moo di cérémonie officielle bi ginnaaw bu ñu jullee tàkkusaan incha allah julli tàkkusaan ndax démb euh, bés bi ni ñu ko waxee ñaari fan lay ñaari fan lay doon euh, demb la 20 ak la 21 demb nag la ci a xew ci bés bi bokk na ci euh, li nga xam te moom moo di exposition maanaam wane ay nataal ci Cheikh Ahmadou Bamba Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye ci guddi gi ñu amal li nga xam te moom moo di rek guddi gi maam Cheikh Ibrahima Fall. kon li nga xam te moom moo di tey ji mooy li nar am ci journée bi jàng xasaat yi kuréel yi lépp gis ngeen ko ak alxuraan waa ci kaam ni waaye incha allah 5 bu ñu sëlmalee julli takkusaan gi ñu door cérémonie officielle bi ci teewam nag kilifa yu bëri euh, kilifa yi diine Cheikh Bass Abdou Khadre mooy ñëw teewal euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir yore kàddam waaye ki nga xam te moom moo di euh, rek Abdoulaye ki nga xam te moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr moom it dina dikk teewal président de la République son excellence monsieur Macky Sall waaye Cheikh Makhtar Diouf lépp di am ci taxawaayam moom mi nga xam nag moom moo nekk jëwriñu Cheikhul Khadim fii di door liggéey bi di ko amal comité d'organisation bi allah loolu mbokk yi dañuy bàyyi nag euh, ñu wëy ci programme yi ak li nga xam te moom moo di askan bi ñuy teew fii ci mbooloo mu takku fii ci yoof euh, ci jàmmalaay euh, fépp fi àdduna bi gox yi fasanti ko jóge nañ fa ñëw fii nga xam te moom moo di yoof ngir teewee bés bu am solo bi kon ni ñuy def muy topp programme yi xool li nga xam ne noonu la ambiance bi amee ci bés bi ak xeexoo yi ak laataa ñuy dem ci cérémonie officielle bi